kilifa diine yi gëdd delloo askan wi seen jër li nga xam mooy allur yooyu muy géej gi muy euh, suñ zircon bi muy suñ pétrole bi muy suñ gaz bi muy suñ fer bi loolu lépp Macky Sall jaay ko tubaab yi dinaa fexe mu delluwaat si biir Sénégal ba nga xam ni képp ku fi nekkoon sàcc allur réew mi danañ ko nanguwaat delloo ko si biir réew mi ñenn candidat yi ànd ak Macky Sall fukki at ñaar ñoom ñëpp ñoo Macky Sall yem ku leen woteel woteel nga Macky ku leen pare na pare na nga Macky amul Aly Ngouille Ndiaye amul Demba Demba Ndiaye ñoom ñëpp a yem ak Mame Boye Diao ñëpp ñoo yem bu dul fëkk bëri na ñëpp xam ni ñoom ñoo contrôle mag euh, mag kii Ablaye Wade ñoo tax Karim Wade nekkul candidat 2019 ak Khalifa Sall bala ngay laajum réew da ngay set maa ngi laaj ñëpp xaalisu ArcelorMittal maa ngi laaj 45 milliards Big Togo maa ngi laaj Mame Boye Diao suuf filawooyu ak suuf aéroport suuf hangar maa ngi laaj ñeneen ñi nga xamante ñëpp nekk na ay candidat ne kenn mu nekk yëg sa loxo ne mosoo lekk xaalisu réew maa ngi wax ni ñoom ñëpp nañu génn seen patrimoine ñoom ñëpp ku xool seen rondal yi xool seen kër yi da nga fi wax allu réew mi la kon allu réew moom nag bu ñu ko jëlee mbooleem koo xam ne def ko nga sa régime bi dinaa la participer si kër pour que la nekk te réew moom mu jël ko jox ko baat réew mi ndax jàpp naa nag allu réew mi réew mi ko nga xamante dañuy dem si àll bi di waaye réew mi normal amu fi kumba am ndey ak kumba amu ndey moo fi am moo tax ma bëgg a jël réew pour loolu dakk Amadou Ba nekk si àll bi làmbar lambari ñu bàyyi ko lu ko neex def ñu jàpp ay candidat di téye loolu jaaruwul man mii wax a yow sama mission bi ma yónni ñenn ñaa ngi Ziguinchor jëm Sédhiou ñenn ñi fi doy ma wax ñu ngi Tamba jaar na Louga dem na Ndar dem na na Risatol dem na Matam ñoom mission laa def man damaa nekk loo xam ni. li may def dama nga def suuf waaye bëgguma poogaroo bu ma neexoon génn fukki oto di lambar lambar si àll bi waaye damay fexe wat mi man parrainage du ma téye xaw lu may téye waaye du ñi nga xam ne mën ñoo mat a parrainage nag peut-être ñoom ñoo yor ay caravane ñu leen di gis ak nangam nangam mais li ma lay wax daal mooy lii Macky Sall teg si wi jaaruwul Ousmane Sonko seeti naa ko keroog ba ma demee mercredi laa ko dem seeti ko hôpital pa mi ngi ci cabinet gis naa gis na ma waaye Ousmane Sonko maa ngi ñaan yàlla mu jële ko parce que Ousmane Sonko wéru nan ko fa génne ba ma demee tamit kaamil alxuraan laa yor bi ne mënoo koo gis maître Ndiaye laa ko jox ñu ko demal nga joxal ma ko lam wax maître Ndiaye xam na ko xam naa ko li am solo mooy lii muy dund dundoon naa ko man képp ku mas a jóg pour liggéey sa réew dese nga ak buur bu saay-saay bu la gàllankoor kooku nan ko nangu ndax loolu yàlla moo ko bind beneen bi mooy la ko fa mën a jële sama loxo bii lay nekk ko fa génn incha ñu génn ko balaa élection yi beneen bi mooy ma réew mi génn ko moo tax ma ni élection yii ñëw du élection Macky Sall du élection Ousmane Sonko référendum la mooy képp koo xam bëgg Ousmane Sonko libre am liberté mën a nekkaat si li mu war a nekk mooy nga wote contre Macky Sall wote Cheikh Abdou ku bëgg Ousmane Sonko continuer nag bu la neexee nga wote Macky Sall wala bu Amadou Ba loolu moom mooy li am en tout cas li nga xam moom la tribunal Ziguinchor génne ñun dañ koy que Ziguinchor siis moo àtte waaye mu ne xam na ni 2021 ba léegi Macky Sall benn programme la am mooy Ousmane Sonko bu mu bokk Macky Sall dafa nekk si lusigam nekkul si mbirum justice moo tax lépp lu man bay gàllan ko Ousmane Sonko dana ko def waaye yàlla rek moo fi nekk te yàlla mooy xam ëllëg kan mooy jol te yàlla moomu du fi jóge ba mukk te jàpp naa ne yàlla pare na Macky Sall dana fi jógee Cheikh Abdou Bara dana fi toog bu neex yàlla incha allah